ma waxoon sànq ci système bi ministre de l'intérieur wax na ko dama bëggoon a wax ne euh, maag sama naataango ministre de l'intérieur li nga xam ne moom lañu ñëw tey jii doon fekkee ñu koy démarrer mooy yokk ndox mi nga xam ne dañ koy jëlee fii ci Camibas di ko yóbbu ci forêt de Mbao du du euh, taw démb yi ak bërki démb moo tax ñu def ko ñaar fukki fan ak juróom ci ginnaaw la ONAS ak brigade nationale des sapeurs pompiers ñëwoon fii gis ne war nañoo yokk ndox mi ñuy yóbbu marigot de Mbao bobu lañu jël engagement ne dañu def ay tuyaux enterrés en PVC yo xamné tuyaux yoyu brigade nationale sous pompé ci la koy def pour mu yóbbu ko foré de mbaw entreprise bi waxone né dañu mëna def liguey bi ci diru ñaar fukki fan diiru ñaar fukki fan bi même balaa mu yegg tay lañu ñëwon pour di démarrer liguey bobu wax nga sank marigot de mbaw aussi su fa yeggee marigot de mbaw aussi def nañ fa liguey bu mag parce que bi bi nawet bi jub lañu gouverneur bind lettre daal di population yi.

gis ngeen fii ñi nga xam ne ñooy brigade nationale des sapeurs pompiers di liggéey condition yi ñuy liggéeyee di fi fanaan guddeeg bëccëg te loolu ils le font au nom de l' état du Sénégal président de la République moom moo ko sant ministère de l' intérieur sant ko ministère de l' assainissement ñu koy def. non non non waxu marigot bi moom on l'a maîtrise là-bas moo na moo tax li ñu lay wax nag moo mooy li ñu lay wax xam nga fii dañuy dañuy pomper 2000 mètres cubes muy dem ci marigot bi. dafay am ñeneen ñu nekk ci marigot bi ñu gisee ne 2000 mètres cubes yi suñ ko fa yóbboo dana indi lorangee ñu dëkk foofu su boobaa dañuy wàññi suñu wàññee ñi dañuy plaindre daal di ne ñoom ñu ngi nekk ci ndox mi